asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbéy ko internet bi asalaamaaleykum waa diaspora bi asalaamaaleykum waa adduna bi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sangu-sang yi ah di ñaanal ñi caabi fet ginnaaw yàlla leen fa yàlla jëlee di ñaan di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp di ñaanal tamit waaye daw li yal yàlla yërëm leen te xaaral leen di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi dina jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba tey ñoo ngi fii nag euh, ci studio Dental TV fii ci Kër Massar euh, yoon case de tout petit si maison de la justice man bërëb rafet maa taxawoon di ànd ak yéen euh, di waxtaan ak góor bu ñaaw gi noo def nuyu naa sëñ ci loolu yow yaay Cheikh Tama. waaw man maay Cheikh Tama. waa Cheikh Tama damaa bëgg nga nuyoo. thank you déggal loolu seex tama dafa mel ni nuyoo ma tama mm. ah, daa ndënd ma daal nuyoo te seex dañ ne yow yaay borom tama tubaarkalla macha allah seex ba nga nuyoo waa Sénégal bàyyi ma jox la micro bi nga nuyu nuyu kilifa diine yi. ndeysaan tamit koore maa ngi lay siyaare yow da ngaa tudd jëwal bi. moo tax kenn gënu la. <laughs> waaw waaw dégg nañ ne bu baax waaye dañuy siyaare àdduna wëngal këpp macha allah. di siyaare itam nga xam ne suñu borom dañ ñoo boole ak ñoom ñu nekk suñuy fans ñu topp fu ñu dem ñu topp ñu. Euh, tey nag Ngéweul faa mu yëngatu ndax li ko waral mooy Bass dafa nekk kenn si man mu nekk koo xam ne xelal la mais ku jar bàyyi xel la parce que bëgg na réewam euh, bëgg na boppam parce que pour nga bëgg sa réew sax. d'abord faaw nga e xam yow yaay kan ba pare. te loolu dal na bas. E, damay toog si tere yi à tout moment di ko wax tey mu rawati nag ñu ñëw si suñu alal parce que lii ñoo ko moom fi ñu ñëw tey man kontaan naa si trop ndax fépp fu ma di e, dem tey mun naa ne wax dëgg yàlla fii moo ma ko dàqal parce que fii laa am waaw damay nuyoo noonu ami Kole waaye dëgg kapulejeere borom nagam meew yi waaw waaw loolu não dina ko waaw moom que você sëñ Saaliw lool ba pare itam não o ko itam ndax waar wi dafa yéeme muy ku tedd ki lim ñu fi bàyyi pour ñu war a bëy ay waa bëri na loolu yaatu lool te ku si nekk mën nga am foo xam ne fa lañ la branché pour nga war faa mën a bëy sa waar kon moo ngi bëy waaram moom ci côté bi mu ne moom bas mm-hmm. waa dégg ngeen loolu seex hmm? yow ma jàkkaarloo yow bu baax. dégg la yow déwén nga. kon tey maa def nii. lii lu mu tudd lii mooy a ngi nga lii laalal ma cóol ma gis. mën a fecc cóol piir man a fecc baara mbay a fecc xolal yaa ngi noonu lii lu mu doon ah waaw dégg nga mbëng noonu ndax mbëng mbëng dégg naa moom daanaka rab yi lii lañ am lu ci hmm, dafa tolloon ne rek dañ dem léegi ba ñu bëgg koo fooye wala boog ñu bañ a xam lan la lan mooy tama ak sabar mais tama ak sabar suñuy maam ñoo ñu ko fi bàyyi hmm, ñun ñu war koo topp surtout na man direct bobu la amé muy tama sabat ñi sama rak lañ tay luma mën mënti def na émission yi ma yi ma def yépp bi moo ci si dàqal parce que dama tourner tay jakarlo ak sama rak ño xamné man ak ñom ño bokku ño bokku benn papa kon émission yi ma def yépp lu muy bari bari bari bas tay émission bi moo ci gëna neex té ni dootuma ko si suma aduna may gërëm suma mag bi nga xamné nek nek mu nek si suma ginaaw di ma ku ma ku bàyyi xel la moom jabaay nii waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf dégg nañ dama Cheikh mm-hmm. dafa fan waaw ñun yàlla dogal na dañoo yàgg a ñun ñun ñooy toj <laughs> mais man Cheikh man dama laa gisul fenn man xàmmeewu ma la waaw euh, kon dalay wax ne xàmmeewoo ñi fi ne parce que képp ku fi nekk yàlla dogal na ñuy jaxasoot moom ba euh, mën nañ ne tey bu ñu génne woon suñu loxo ci ñi fi nekk day feeñ ba sa tama moo yore tey musique en euh, Sénégal boog di moins tama moo ko yore euh, ku ku déggul tama si sa musique bëf mooy déggoo dara kon yàgg nañoo toj waaw vraiment. macha allah andak ak nguudam yi nga xamanteni moy mooy ñam tubaab fa kàlla macha allah su ko defé ba paré dal koy jox ba Ousmane mi nga xamanteni moy rafetal lepp tek ko ci aduna bi ñepp gis ko neena len fi la mburu mi di xoyam xoyam neena len xolal da ngay dugg ci geej gi lankilu ko ci dex gi ma ngi ni ma pël bu rafet neena len fi yam suñu paré dañuy andi ambiance waaw sunu ko